yoo xamante ne jiitu na ko te woote yooyu mujjul fenn loolu moo tax ma gis ñu bëri ñoo xamante ne ay borom xam lañu ci biir réew bu Sénégal te ñoom ci seen bopp bu woote amaan sax ñoom ñoo doon woote ñu am xel ñaar ci woote bi nga xamante ne woote na parce que woote yi fi jiitu woon mujjul fenn mais est-ce que woote yooyu ak woote bii bokk na question la ñu laaj ko euh, xam nga je l'avais dit l'autre fois dama gis benn constance boo xamante ne. son excellence Bassirou jomaay fay daf ko teg depuis bi mu jëlee li nga xamante moom mooy les rênes de ce pays premièrement discours bi nga xamante ne def na ko bi muy def prestation de serment il a encore une fois salué le travail de la justice sénégalaise ci wone ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk les juges du conseil constitutionnel bu dul woon taxawaay bi nga xamante ne taxaw nañ ko xëy na naru ñu woon amal élection wala sax boog naru ñu woon amal le 24 mars donc le chef de l'État a reconnu le travail de la justice sénégalaise loolu di wone gëdd bi nga xamante ne yoon am na ko ci biir réew bu Sénégal beneen bi le 3 avril le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye ne leen man ci sama projet dama jàpp ne war nañu joyanti lu bëri rawatina ci wàllu yoon donc il faut ñu def ay assises assises yooyu deux mois après Bassirou Diomaye woote pour ces assises là pour ñu ñëw toog waxtaan bu ko defee lépp loo xamante ne xëy na jàpp nañu ne dañ ko war a joyante ñoo joyanti ko te li ci gën li ma ci gën a li ma ci euh, sànq Birahim déjà mu ngi koy mu ngi koy wane je reviens encore une fois sur daanaka toutes les parties toutes les composantes de la nation ont été convoquées pour ñu ñëw toog bokk li nga xamante ne moom mooy waxtaan wi ba ku nekk mën cee indi xalaatam ndax nag Olof Ndiaye dafay wax naan benn mat yomb naa damm waaye buñ ca tegee ab say dina xaw a métti damm lool donc ñoom ñëpp bu ñu ñëwee toog ku nekk indi li nga xam ne moom mooy xalaatam ci intérêt wu réew bu Sénégal xëy na bu ñu demee ci kanam après les conclusions seront des conclusions yoo xamante ne ku nekk dina ci gis boppam parce que je le disais hier euh, ci benn waxtaan boo xam ne maa ngi ko doon seeg ak sama benn confrère bu bu Sénégal 7 mais la justice sénégalaise se rend par justement les en fait euh, euh, comme on le dit la justice dañ koy dañ koy rendre pour les Sénégalais donc tey les Sénégalais ont un droit de regard ci li nga xam moom mooy yoon bu Sénégal même si après nag li nga xamante ne moom mooy les conclusions techniquement ce sont ñi nga xamante ne ñoom ñoo am xam-xam ci li nga xam moom mooy wàllu yoon ñoom ñoo koy teg mool ko bu ko defee mu nekk loo xamante dañ koy teg mais justice bu Sénégal. je l'avais dit et je le répète encore une fois on a une justice forte on a une justice boo xamante kenn mënu ko xarab ci li nga xam moo jëm ci xëy na nag am na yenn taxawaay yoo xamante ne ñu bëri ci biir réew bu Sénégal ñu ngi koy wax que exactement c'est la justice ou parce que hier parce que hier eh, Birahim boo leen fàttalikoo il y a de cela trois mois ci ginnaaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi tey ñoom ñoo doon duut baaraam justice bu Sénégal di naan justice bi nekkul justice bu équitable justice bi nekkul justice boo xamante ne tëddee na njaaxanaay mais ñoom tey ji ci ñoom am na ñoo xamante ne ñoom ñooy tàccu justice du Sénégal ci ñoom Bassirou Diomaye le président de la République et j'ai donné l'exemple tout à l'heure bi nga xamante ni les juges du Conseil constitutionnel teg nañu ko samp ko mu nekk le président de la République du Sénégal mais dem bi ma demee palais de justice ci procès Bah Diakhaté ak Imam Aliou ndaw j'ai vu des gens de l'APR des responsables de l'Alliance pour la République qui étaient il y a de cela trois mois ci pouvoir ñoom ñoo nekk tey ci opposition ñoom ñooy duut baaraam li nga xamante moom mooy l'opposition en disant que la justice est en tout cas euh, manipulée euh, parce que dafay jot ay ordre hier quand j'ai entendu ces propos je me suis dit waaw xanaa du ñi démb ak barke demb ñoom ñoo fi nekkoon lan moo xew entre janvier ou entre février uh-huh. entre mars uh-huh. ak léegi nga xamante moom mooy le mois de mai donc encore une fois je le rappelle cela montre que la justice du Sénégal am na taxawaay bu am solo boo xamante ne am na ko c'est vrai que après lii nga xamante ne moom mooy tax ñenn ñi di ko ñàññ di ko ŋàññ mooy ku nekk ci biir réew bu Sénégal bu la justice joxee yoon nga tàccu bu la justice joxul yoon te teg ko ci li nga xamante moom mooy les lois et les règlements établis par la constitution du Sénégal mais par le code nga ne yoon baaxul il faut qu'on arrête. <laughs> situation boobu. loolu loolu.